Bokour Amadou Ba Jomay Fay Cheikh Tidiane Dièye Révélation Cheikh Bara légui euh, ki nga xamantene moy Amadou Ba momit it nañ est-ce que du Guinée wax nañ ko Guinée la wala du Guinée hmm. momit ñu ngi dafa melni lool lañ koy topé double nationalité da bu nekkee Guinée nekk Sénégalais. Cheikh Bara du révéler day sos. du révéler day sos révélation moy nga wax lo xamné deug la. d'accord. révélation. d'accord wa Rési wadjal vidéo bi. vas-y ñëwal révélation moy nga hmm. wax lo xamné deug dëgg la. Hmm mais nak yow ya koy fessel ba nit ñi xam ko ya koy siiwal dal mais dafa mom day jël ay sos rek indi <laughs> forcé ñu ko d'accord ñu déglu Cheikh Bara te am solo moy gis nga jomaay fay waaw dafa am ben avocat bu ko fekk ci biir palais tel eh, ki bi ne ko jomaay mhm. dama bëggoon nga def recours mhm. ci diw ci Amadou Ba mhm. parce que Euh, nangam ak nangam ak nangam soo ci recourir day day jàll. Mm-hmm. jamaay ne ko non du ma ko def. Mm-hmm. bu ma kenn recoural. Ah mu ne ko lu tax mu ne ko parce que élégance républicain moom ma mayul. man ak moom yëpp ay mbër lañ yu ñu war a dem. Mm-hmm. ma koy gàllankoor. deuxièmement mooy euh, maanaam sénégalais yi ko parrainé. waaw ak lu mu néew ay sénégalais yu toog bëgg koo wateel. du man maay def luy tax ma xañ leen ñu wate. wallahi wal xuraani naa si jomaay ko wax. lii wax waaye léegi xoolal jomaay ni mu gënee Amadou Ba. waaw hmm. ah, hmm. xoolal jomaay rek maanaam ni mu yoree ni mu gënee nekk républicain Amadou Ba ni mu ko gënee sóoraale sénégalais yi ni mu ko gënee sóoraale intérêt Sénégal. Hmm. xoolal Amadou Ba moom ni mu def. dem na ko dama lay recours maanaam ke ke sax loo xam ne nii. maa amul ci code électoral te xam na ne lii day daanu de. mais da def parce que moom xolam loolu la tollal quoi. comprendre léegi nag. jomaay xoolal bi ñu ko ne rek wëral ci diw te pourtant même même même même lii ñu ko doon toppaloo ci ci kii garaawul jarul ma koy souligner. su ko souligner woon teg ko ci taabal ji fii Karim nekk mën na faa nekk te ah bon waaw waay parce que mm. nag am ah gars yi dañoo bokk ay boutique de Amadou Ba Sonko Jomaay fay waaw ñoo bokkoon bureau yu ñuy liggéey te danoo yàgg de. Mm-hmm. waaw daa bari lu nit ñi laam-laamee ñoo xam ne ñoom dañ ko yor ci seen i rëdd baaraam. waaw waaye nag élégance ñu déggandoo li nga xamante ne comme niñ koy waxee euh, jaaykat garab bi lu mu wax ci Amadou Ba ak jomay fay waaw moo tax li ma la wax ci Baara rek mm-hmm. moom du révélé day sos day sos sos ak révélé bokkul xam nga dane Basiru dañ ko wax defal recours ci nangam ak nangam loolu mooy sos yi bu doon day révélé day wax exact danaan Basiru dañ ko wax defal recours ci lii ak lii tudd ko directement mais dane nangam ak nangam yam moom ay waxam da koy bëlëfe noonu parce que xam na ni masse bi koy diglu di ko gëm baara moom diglu ko gëm ko sax damaa yaakaar na yàpp sa bopp la quoi hmm. yàpp sa bopp moo tax man la du révélé day sos lépp lu mu wax amul ndax moom doon na fi jaayi ndomba après dañ ko jàpp tugal ko ci kaso bi moom ndomba yi kon est ce que mënees na tey gëmati ay waxam yi muy wax nii du ay wax gis nga candidat ex passif bu am dara ku ci jege Macky Sall ku fi néew lu tuuti tuuti waxuma sax laataa ñu koy def recours. Mhm. dañ koy def seen réseau yi. Mhm. lan lañ doon njëkk doon Amadou Ba guinéen la bañ xamee loolu jàll dañ ko teg ci suuf léegi lan la ñuy def recours ci Amadou Ba dara xamuñu ko de léegi fallait que Baara ñëw war ne Basirou dafa élégant moom du def recours nangam parce que def nañu recours ci moom. Mhm. parce que Basirou dañoo war a def recours ci moom ndax état moo nañu. parce que xam nga état ak Macky Sall am na benn différence Macky Sall day dem état des état bi moo ne ci tour procureur de la république Bassirou mii dañ ko tudd ci mbirum terroriste sa waay bu doon France la France bi ñuy écarté fion est ce que xaar nañ enquête bi leer ci costume yeeg yooyu xaaruñu ne mhm. bi ñu xawee am soupçonné rek indice yu concordant am dañoo ne fion nañu may ba pare dañu leeral mbir yi ki fi amoon ak problème na Nafissatou jàng avant ñuy lijjanti euh, condamné nañoo condamné nañoo def naa def xam lan li jëm dañu see toogal xaar bañ nag ñu jiiñ fi nit lu toog mhm. de la. Mhm. nga ñëw wëlbatiku di laaj réew moomu te loolu leeragul. Mhm. ah. <laughs> sama xel tey na de. sa na looy wax ci révélation Cheikh Bara yi. waaw xam nga vidéo bi ñoo ko seetaandoo. askan bi yëpp seetaandoo ko. ma yaakaar ni plateau bi dama ci gis juróomi nit. juróomi nit ñoo toog ci plateau bi <laughs> te ku ci nekk yaakaar naa ni gëm nga ni que kilifa nga. soo leen xoolee da nga naan xoolal kilifa yi toog. Mm-hmm. ma gis waa jooju sol mbaxane bu verte bi moo doon wax kii dafa ne léegi kooku ab soskat la. Mm-hmm. man ma ne ab fenkat la. Mm. xam nga fenkat maanaam ci moo wolof la jógee soo diggee ñen la fenkat maanaam mooy kii fent tey ah waykat bi su woyee dañ dafay naan fent naa way créé naa way moom ab fenkat la. xam nga fenkat nag nga toog ci plateau sa ñeenti morom toog ñoo ñu xam ni ko yow li ngay wax da ngay fen xëy na am nañu élégance pour wax la ni bàyyil fen waxuñu la ko mais moom moo waroon sóoraale jabaram ak ay njabootam xam nga ñaari mbir moo am gis nga ay nit. Mm-hmm. yow da ñëw woote Sénégal que man mii kat damay jaay ay garab ay xob yuy faj ay ndoxum sitti ay reen. su ñu mm-hmm. demee ba multiplier la ba jamono di dox nga war a mën a toog ci plateau doon chroniqueur. loo xamante ni jàngoo ko xamoo ko maîtriser wu. c'est-à-dire que yàpp nit ñi weesuwul mooy Sidi Lamine Niass génn àdduna ab doomam war a jël ndono bi teg ko ci tànku baayam bi nga xamante ni dañ ko nawoon doon ko mhm. référence mhm. mu créé benn médium boo xamante ni je crois que bi muy wal fajari barki dem la doon fête quarante ans xaw ma cinquante ans quarante ans quarante ans mhm. kon bi Sidi Lamine Niass di liggéey di teg loolu amaana xëy na Cheikh Niass benn at laam wala juddóogul kon tay dafa waroon sauver li nga xamanteni moy bayam bàyyam liggéey ba sénégalais tay diko di ba tay kuy téye micro yaakaar naa ne ci télévision yi ngay gis Sénégal yëpp. Mhm. sa tànk samp nga ko foofu muy Walfadjri. Mhm. tay Cheikh Niass ñak faydam ak tuuteem en tant que un avocat jàngee France je me rappelle très bien ba muy jël ba muy def mémoire mhm. jour bobu je crois que Sidi m'avait envoyé la photo ñom ñaar bi taxawé ci bir baro bi di photo bobu ma ngi am contact ak Sidi. bobu ñu ngi ci ay magazine pour ñu publier ko kon kooku su ñaké fayda tay ba ki wara tok ñu jël ay comédiens des comédiens. comédie show lañ leen xamé won def yëfu rétan ay affaire théâtre ay ataya tok ataya ñun la légui yow yaay euh, indi li nga xamante moy agréable comme genre aba show nu muy def. ay yalgati xibaar ak yooyu. léegi di information au Sénégal et il se donne de l'importance. je me dis que on est dans quel pays on n'est plus dans un état sérieux Benen côté bi ma pointe du doigt le ministère de la communication bi ci top ma pointe du doigt li nga xamanteni moy mooy SEDEPS e mhm. li nga xamanteni moy conseil d'éditeurs et de diffuseur du Sénégal ma pointe doigt li nga xamanteni moy mooy SYNPICS ma pointe doigt li nga xamanteni moy appel li nga xamanteni moy correct ak li nga xamanteni moy AMPERS dañu nek ci benn réew bo xamanteni dañu jël quatrième pouvoir muy média niñ mhm. ko tuddee won muy journalisme parce que qui détient l'information, détient le pouvoir. Les détenus de information on détient le mensonge. ah oui Je ñu Sénégal Nous devons détenir l'information, la bonne information juste et fiable Nous war ko jox et parfois nous que le journaliste n'est pas un juge Quand nga est un juge. mooy kii àtte journaliste bi amul pour àtte dañ la ne demal nga saytu ju xibaar bi nga xool xibaar bi li ci wér nga indi ko jox ko askan bi ñoom ñu xoolal seen bopp am na ñu toog seen salon di ñu seetaan information bi ñuy joxe ñoom ñu ngi ko am à la source à la base te ñun amuñu ko à la source à la base kon suñu demee ba foog ni ne ko suñu daraja ak suñu toogtale dañ ñu ragal ñu jël ab fenkat bii nga xamante ni mu taxaw di wax ni xam nga déjà fen weesuwul nga ne dafa am avocat bu ko ne moom dafa ne avocat bu ko ne bu ko nee da la wax Basirou Diomaye fay dafa dem ba ci avocat bi mu ne ko Basirou Diomaye Faye dugalal recourt ci Amadou Ba man doo xam laay wax moom avocat bi moo ko wax Basirou jomay fay avocat bi lu suy yoonam ci politique ba muy dem ne Basirou Diomaye fay dugalal recours ci Ousmane Sonko est-ce que moom fekkee na bi avocat bi di wax ak Basirou jomay fay est-ce que avocat bi li mu ko wax dëgg la wala du dëgg te daf ci yëkkati loxoom waa dafa yëkkati loxoom waat. Mhm. te balaa ngay waat na nga waat ci li nga xamante ni am nga ci firnde leer na la teg nga ci bët wala tegoo ci sa bët donc ce qui veut dire que nii la ñuy jaaree seen système de manipulation. Bassirou Diomaye Faye su amee droit dugal recours ci Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye il connaît très bien Amadou Ba moo nekkoon directeur am impôts et domaines. Amadou xam nga tey Karim lu sax ñu laam-laamee ci double nationalité parce que yaayam Viviane Wade française la Karim Wade ci la juddoo. mais Ablaye Wade sax amoon na nationalité. waaw dégg Ablaye Wade nekkoon da nga koy am tey ci solu France la juddoo suuf ba soo ca juddoo nationalité boobu da nga koy am Amadou Bag ñaari tali la juddoo ñaari tali bi Grand Dakar rue dix mhm. fa la juddoo soo weddee li may wax laaj ko Bekkaay Mbay ñoom ñoo yarandoo ñoom màggandoo mhm. Khadim Dia mii nga xamante ne mooy conseiller technique am en communication papay Xaadim Dia dëkk Sicap rue dix man ma dëkk Sicap rue dix villa numéro 2 mooy villa rose fi ñu nga xamante ni sama mam moo ko jënd fii ñu doon defee affaire u handicap yi ñu dëkk foofu màggandoo foofu yarandoo foofu kooku kenn mënul laam-laamee double nationalité parce que Ndakaaru bii la juddoo mhm. di Sicap Rydis Grand Dakar màggee fa yaroo fa jàngee ci école Ndakaaru yi dem dëkk ji Parcelles Assainies bi parcelle di soo a commencé kon donc je crois que su ngeen nee Amadou Ba dafa am double nationalité il est guinéen ou bien il n'est dire que yàpp guinéen yi la ci boppam mhm. yàpp ñi sant Ba la ci boppam c'est-à-dire que dafa am yoo xamante ni dafa taxaw quand nag su ma déggee ñii di wax nii c'est-à-dire que le peuple sénégalais ñoo war a tirar seen maturité mooy li may wax souvent rek ku ñuy sëcc jiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir mais kii wax dëgg yàlla man je me dis que fenkat international bi ñuy teg ci plateau suba ngoon guddeeg bëccëg ça veut dire que ce média là c'est un média boo xamante ni c'est un média pourri Cheikh Niass tey ak intégrité bi mu am jëm ci wàllu éthique il devait même pas accepter que ce menteur du top ci plateau de di wax que sooy waatal ni da koy Diomaye Faye kenn ce hmm. si c'était pas Ousmane Sonko on ne le connaît pas et Ousmane Sonko est-ce que beugna na Diomaye Faye candidat Ousmane Sonko ne fait pas confiance à Diomaye Faye am na dit loolu hmm. ba projet Pastef kan la ñu Ousmane Sonko Biram soleil Diop numéro 2 Bassirou Diomaye Faye directeur exécutif Ousmane Sonko su demee ba laam-laamee candidature am moom ba laam-laamee candidature am xanaa nag wax dëgg yàlla parrainage bii nga xamante ne ab tirage la doublon yi mën a jógee fu nekk nga yor ñaar fukki député ak juróom-benn nga jox fukk ak ñett yow sa bopp fukk ak ñett yi kay Bassirou bi nga décidé moom nga koy jox. mais da nga dem jëli ji le pur produit du système l'ex directeur de cabinet de Abdoulaye Wade un Habib Sy nga ne ko yow laa jox samay parrainage yu député. Bassirou Diomaye Faye yow demal nga lëngo jooju sa affaire pourquoi les Sénégalais ne se posent pas cette question donc ce qui veut dire que Ousmane Sonko n'a fait même pas confiance à Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ne veut même pas que la candidature de Bassirou Diomaye Faye passe parce que suñu bëggoon candidature Ousmane euh, Diomaye Faye jàll je crois que amoon na une stratégie bi ñu Ousmane Sonko sax du dugal. Mhm. pour wax le deug. mais man kii Biram Souleye laa gisatul. waaw <laughs> noo koy gisatee. non dafa nànk dama la jox un exemple ba jeex jëli ji dossier de parrainage jotee ci ñu bokkon ci parti bi ñu gisul muy Pastef kan nga fa xamoon du gi Mari Sagna. Biram Birame Souleye Diop. te ñu ñuko kasso fi ndax Ousmane Sonko. Abbas Fall. ak El Malik Ndiaye El Malick Ndiaye. Guy jëlul fiche. Abbas jëlul fiche. Hein? Euh Biram jëlul fiche. Abbas dafa am problème ak justice. Abbas am problème. Mhm. Abbas kenn japp ko. lutax Ousmane Sonko ba muy désigner di joxe ay député joxuko ko ñooñu bu jéggi ñooñu dem jox Habib Sy léegi luy ndeyu Habib Sy Cheikh Tidiane que ñoom ñaar ñu taxaw ne Ousmane Sonko candidature su jàllee ñoom dañuy retirer candidature est-ce qu'ils ont une ambition pour le Sénégal ku ambition pour diriger le Sénégal dama foog ni que da nga ak ay moyens diriger Sénégal voilà mais Ousmane Sonko dañuy retirer donc ça veut dire que ce sont des éléments de Ousmane Sonko. Mm. quand Amadou Ba un recours indi proximité li nga moy Cheikh Tidiane la mouvement mais Cheikh Tidiane Ousmane Sonko bi muy coalition dafa ne kep kuy di mouvement koy parti mouvement am daf ko ci sayal Cheikh Tidiane Dièye sayal ko ci kon donc je crois que fenkat jaay na ay garab fen na àdduna bi man parfois damay posé wu question quoi naka lay wàccee télé bi dugg otoom wàcc buntu këram dugg ci biir këram jabaram ak nawleem yi nga xamante ni ñi ngi jàkkaarloo moom ñi xam ne que kii li muy wane yëpp ndekete pas fenkat international moom lay sëyal nit koo xamante ni du wax dëgg nit koo xamante ni day fen suba ak ngoon ba bëccëg donc je crois que ñii man seen wax jarul ma Tataï, déglu tay tey yan plateau nga koy gis fan nga koy gis Sénégal 7. vu le ñu bëgg sans limite. ce sont ces genres de trucs parce qu'ils participent à cette communication de manipulation. Mhm. li am solo le peuple est déjà debout.